di leen sant di nuyu sénégalais yi nek ci réew mi ak di nek ci bitim réew di wax ne tey bés bu mag la ndaxte bisu kasu rajab bu ñu fekkee fii ñuy xeex ndax ki nga xam ne nii moom bis bi taxawal Sénégal ak jëmmal Sénégal rek moo tax tey jii ñuy célébrer kasu rajab bu ñu fi jógee Touba lañ jëm ànd ak mbokku jullit yëpp ak mbokku taalibe yi pour def li nga xam ne nii moom la ab taalibe bu nekk war a def di wax ne bés bu toll nii ñu ñëpp ñu taxaw fii jàkkaarloog askanu Sénégal jàkkaarloog àdduna bi pour xeex li nga xam ne nii moom la ñu gouvernement président Macky teg ak assemblée nationale mu nekk loo xam ne nii teguñu ko fenn teguñu ko ci yoon teguñu ko fenn lu dul bëgg jaay doole Sénégal Sénégal nag li ngeen bëgg mooy yéen moom seen réew président la bu ma di nekk yéen koy fal yéen xool programme am xool ki leen doy. ngeen tànn président de la République parce que loolu mooy suñu constitution la constitution bi wax nag dara mënu ko dindi président de la République mënu ko dindi assemblée mënu ko dindi ñun ñi nga xam ne ay candidats lañu mënuñu ko dindi kon nag li am mooy ñuy ñaas lancer appel président de la République ak bépp doomu aadama bu nga xam ne yaa ngi nekk ci ku jegi ak ñi nga xam ne ñoo nekk ci exécutif mu nekk ci législatif bi ñu taxawaat xam ne Sénégal dëkku jàmm la te jàmm ci la lépp xaj jàmm nag bu naree am ñi ko war doxal ñoo wara diko di jox jàmm te ñoom doxuñu jàmm motax ñu ñaan yàlla ne kilifa diine yi kilifa aade yi ak Sénégal yëpp ñu leen di talal loxo pour que ñu xex li nga xamne ni bu amé dina ndërmalal démocratie Sénégal dina yàq ëllëgu Sénégal te ëllëgu Sénégal lépp lu koy yàq dañ ko wara moytu. lool motax collectif bi taxaw ne ñun ñëpp dañu wara ànd joxante loxo joxante loxo nak moy ànd ci dëgg joxante loxo nak moy doxal yoon. joxante loxo nag mooy fexe ba Sénégal bi nga xam ne ñoo ko moom te bokk ko dara war ko bañ a yàq maa ngi leen di gërëm di leen sant.